al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu taala wa sallama ala sayidina muhammadin wa alihi ajmain mbokk yi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di siyaar di leen ndokkeel ci weeru tedd wi di shahru ramadan al mubarak ñaan sunu boroom defal ñu ndimbal ak tawfiq ba ñu mën a joxe ndigal yim ci digle yépp lim ci digee ci aw yiwit ñu jot ci ñun ñëpp yàlla sàmm ñu sàmmal ñu suñu njaboot sàmmal ñu suñu kilifa ñu ciy siyaare bu baax di ci ndokkeel euh, alxalifatul am cheikhuna cheikh Mouhamadunil Muntaqa ñaan suñu borom sàmm ko te dëgëral ko te àggaleel ko ay mébétam yépp te ñu ànd kook moom ñu war a ñëw nag ci waxtaan woo xam ne ñu ngi koy jëmee ci lan mooy war lan moo war murid yi ci taalif wala téere wala mbindum sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu mi nga xam ne moom la fi bàyyi muy tomb boo xam ne am na solo lool mat naa waxtaan lool ndax ñu ñëpp xam nañ ne sëriñ mag bi radiyallahu anhu euh, kennu la woon ci diine ji waaye kennu la woon ci xam-xam cër bu rëy rëy boo xam ne gisuñu ndendam fii ci wàllu xam-xam suñu borom baaxee ko waaye nag mu sonn ci lool jox ko yitte lool ba am ko dund ko dundal ko woote ci ñu dundal ko mu bàyyi fi ay téere taalif yu am qiima yoo xam ne mën nañoo wax ne mbooleem xeeti xam-xami sharia yi ci ëpp solo ëpp ci njëriñ làmb na leen mu jëm ci tawxid ñaari banqaasam yi tawxidul mutakallimin ak tawxidul aarifin yëpp mu taalif ci taalif ci wàllu fiq nu ñuy jaamoo yàlla taalif ci tasawuf moo xam ay teginam moo xam maqaamaam yi nga xam ne ñu jàngalee nu ñuy dunde diine ci rafetal ba mën a am xabul jëf ji mën a rafet ñu mën koo nangu waaye di taalif di sant yàlla di cee tudd ay mbaax ay ngëneel yu ko yàlla defal loolu ci baabu sant yàlla lay dugg te tasawuf daa bokk ci maqaamaatul yaqin yi nit yàlla yi dox jëm ci seen borom jaar ci escalier bu ñuy wax sant loolu lépp taalif na ci ay téere taalif na ci siiratu nabi sallallahu alayhi wa sallam jaaree ko ci ay tagg yoo xam ne dañ ciy dégg day tagg di tudd melokaan yonent bi waaye man koy jàngalewaale ay jaar-jaaram ay melokaanam waaye niñ ko war a ak niñ ko war a toppee niñ ko war a bëggee waaye daf ay ndénkaan ak i eh, laabiire yoo xam ne yii da ko way da ko wesar te yooyu boo ci delloo dañu da ngay mën a wax ne mooy xulaasa wala boog tënkub ñu baax yi fi jiitu woon daal liñ fi dajale woon ci xam-xam buy jëmale nit kanam di ko jural yiwu àdduna ak àlaxira sëriñ bi tënk na ko ci biir taalifam yooyu kon mooy lu am am solo loo xam ne leeral na ko wane ne lu ñu baax ña fi jaaroon la newoon ci ñoom ci ay xam-xam moom la tënk yokku ci nag li ko suñu boroom jagleel moo wax ne tawaali fasaadaati ujaddidu naasihan li wajhi alladi ala midaadi wa mirqami kon taalif yu am am solo la yu mat bàyyi xel moo tax incha allah taala fas nañ ci yéene def ak leeral sunu kem kàttan euh, waxtaan wi nag mu ngi jëm ci kon murid yi lan moo leen war ci téere taalif ak xam-xam boobu sëriñ mag bàyyi radiyallahu anhu loolu de li ci war murid bu ne la ci jiitu mooy mu gëm ne xam-xam xam-xam mooy jumtuwaay bi jiitu ci jumtuwaay yi sëriñ bi doon jëfandiku ci taxawal wooteem bi doon ci liggéeyal yàlla di ci liggéeyal diine xam-xam moo ci jiitu mooy al ilmu xam-xam bu am njariñ nag ñaar yim àndal it muy al amalu saalih xam-xam moomu jiitu yit mooy tax ñaar yooyu it ab charte la ci ñoom ngir ñu mën a jag al amalu saalih mënta jag te xam-xam bu am njariñ ñëwu fa al adabul mardi mënta amit te xam amut kon mel na ne moo jiitu ci jumtuwaay yi sëriñ bi waaye moo ci ëpp solo ndax ak am ak amam charte la ci amoo ci des loolu it murid ne war na koo xam kon su ko xamee boobu dana xam ne xam-xam mbirama ndax mbirum sëriñama woote bi sëriñ bi woote ci xam-xam la ko lal loolu murid bu ne war na ko xam kon bëgg xam-xam yittewoo xam-xam dox jëm ci xam-xam fexe ci xam bu loolu jàllee it mu xam moom murid bi ne lii fi sëriñ sëriñ bi bàyyi ci xam-xam muy mbind ndona la loo xam ne murid ñoo ko moom jullit ñoo ko moom nit nag lu moom lu ne war na koo ñoŋal war na koo sàmm rawatina bu dee ndono loo xam ne ki ko fi bàyyi moo la gënal ci mbindeef yi moo la gënal ci nit ñi ndax mooy sa wasila jëm ci sa borom moo fi nekkal yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon lañ fi bàyyi te sàmmulu ko ku ne ci noonu war naa def yitteem ci fexe ba bokk ci ñu koy sàmm te sëriñ bi wax na ne xam-xam mooy ndonoom mbiram it xam-xam moo ko fi téye daa wax ne eh, ci liggéeyal alxuraan ak xadiis ci la sama ndono di saxe waaye du sax ci matière du or bi nga xam ne moo jëmmal matière or bu bari wala bu tasaaroo du mooy téye sama mbir waaye sama mbir liggéeyal alxuraan liggéeyal sunna moo ko fi téye bi xidmatil kitaabi wal xadiisi yathbutu laa bi dahabin mawruufi alkitaab wal xadis nag liggéey biñ koy liggéeyal ba ci jiitu mooy xam ko mooy xam am xam-xamu diine yee ci tege door caa tege mu wax feneen nit ne kitaabu wal xadiisu wal adab laa jamu fiddatin wala jamu dahab mel ne jiitu sama alal bu ñu may laaj lan mooy li ma moom bëgg ko di ko sàmm di ko di ko di ko defar di ko toppatoo mooy alxuraan ak sunna waaye du dajale xaalis du dajale or kon lem fi loolu la fi bàyyi moo tax mu ne ginnaaw sama alal du or du xaalis waaye alkitaabu sunna la su ma fi jógee it loolu laa fi bàyyi kon ku bëgg sàmm sama ndono da nga sàmm alkitaabu sunna kenn nag mënta sàmm alkitaabu sunna te sàmmoo xam-xam mi nga xam ne moo ko laal te sàmmoo xam-xam mi nga xam ne moo ko kon loolu it murit bu ne war na ko xam xam ne alal ji fi sëriñ bi bàyyi santaan nañu sàmmal ko ko téyal ko ko mooy alxuraan wa sunna te la jiitu ci la koy sàmm mooy xam-xam te it ndigale ma bokk na ci bataaxel yi mu doon bind bi mu wax ne digal naa képp ku aju ci man di murit bu góor mbaa muy bu jigéen te aju ko yàlla rek tax digal naa ko mu jàng mu jàngi pas-pas jàng tawxiid jàng attay laab jàng attey julli attey koor ak yi des yépp ci loo xam ne war na mu kàllaf lépp lu war mu kàllaf rek na ko jàng nga xam ne wax jooju lu yaatu la faraydul ayn yi nga xam daa war ñëpp ñëpp dañ ko war a jàngi yi nga xam ne nag warul ñëpp képp ku ca bëgg yëngu war nga ko jàngi ba xam ko masalan tey ki bëgg a yëngu ci yaxantu war naa dem gëstu ci buntu yaxantu lu ci sariya wax kii bay war wala di jëflante ci wàllu mbay war naa gëstu ba xam la ci sariya wax naka noonu xeeti métier mu ne diine noppiwu ca kon ku ca yëngu war ngaa góorgóorlu ba xam euh, atte nga xam ne nii moom la ci lislaam atte ba doo ca def lu dul noona mu wax nag ne moom sëriñ bi gàddul naa leen yéen murid yu góor yi ak yéen murid jigéen ñi ay taalif yoo xam ne mbooleem lii ma leen wax dana ci nekk dinaa ko defal ngir jëm yàlla ju tedd ji kon mel na ne téere yi mu taalif dafa joxe ndigalul nañ jàngi jàng suñu diine ba xam ko gàddul ñu nag indi fi ay téere yoo xam ne loolaa nga jàng kon yi ci ëpp ci yooyu it moo ko taalifal boppam bàyyee ñu ko kon muy lu ñu am ñu war koo sàmm war koo ñoŋal war koo aar kon loolu it war teef la ci murit bu ne loolu war na ko war a xam bu sàgganee eh, xam-xam yi fi sëriñ bàyyi rek xëtt nga ndigalul sa sëriñ Mawlana Cheikh Ahmadou Khadim radiyallahu anhu ba tey bokk na ci waaye li war murid nag ñu xam ne sàmm ndono loolu ndono lu yitteel loolu nga xam ne sàmm ko njariñul àdduna ak alaxira rek ci nekk nañu xam ne nag sàmm ko laaj na yi muy bëgg a wax li ci jiitu mooy peek ko mbir da koy xam léppam kon lépp lu sëriñ bi bind mu agsi suñuy loxo war nañ ko xam ndax da ko bind ngir ñu di ko jariñoo ay ndigal ak i na ja ay tawjihaat ak irshadaat nekk ca kon war nañ ko war a xam kon murid yi war nañoo peeg li fi sëriñ bàyyi te mu jëm si ci taalibe yi ñu war koo peegu jàngu ko déggu ko mokkal ko loolu mooy tey xam-xam jàng ko déggu ko mokkal ko kon loolu laaj nekkoon ay jàngukaay jàngukaay yoo xam ne nii xam-xam yooyu yëpp war nañ ko fa mën a jànge ba gone gu toll ci jàng rek ñu yóbbu la ci daara ji ba nga gimmi li mënta ñàkk lépp nga xam ko ubbi buntu xam-xam nag boo waree doon ñiy def taxasus ci xam-xamit ñu ub xàllal la nga jàll kon daara yooyu nekkoon tàmbale ci jàngum alxuraan njàngum xam-xam anam gañ ko doon defee démb muy taqlidiya ak nag njàngum bees mi nga xam ne it jamono ko indi te àdduna laaj ko waaye nag loolu la ca gën mooy yoon wi saytu ko nag yoon wi am ay daara yoo xam ne ay programme am moo cay ne lii nga xam ne moom la sëriñ bëggoon taalibe yi mel ni te yaroon ci mag ñu njëkk mag mag ñu àndoon moom ñu téye ko fi fexe ba loolu dem ci njaboot googu nga xam ne kon dañuy wax ne mag ñi fi bala ñu fay jógee liñ jële woon ci maam yaak bàyyee daleen ko jox doom yi ak sët su ko defee muy càlla la guy jokkaloo di dem ba fa soob yàlla su moom subhaanahu wa kon jàng mbindum sëriñ bi war teef la ci taalibe yi fexe ba xam ni sëriñ bi bind te mu jëm si ci noonu ñu xam lépp xamuk dégg wax ma rek xam tur waaye dégg ko la ci sëñ bi wax ñu jéem a xam lu mu ci jublu mokkal ko ba fuñ ñu ko laajee ñu man koo wax fuñ ko soxlaa man koo jariñoo kon loolu laaj na nag barab yañ koy defee muy ay daara daara yooyu ñu saytu ko yoon wi taxawu ko loolu bokk na ci li war murid yi ñu war a àndandoo ak seeni kilifa def loolu waaye buñ fexe ba peeg mbindum sëñ bi it nag nañ fexe ba dund ko nañ fexe ba dund ko li Cheikh Mahmoud Mountakha di wax ne bëgg nañ sëriñ bi waaye xamuñ ko dunduñ ko loolu mooy li wér dañoo war a dund nag sëriñ bi ci jàngaleem yi mu fi bàyyi def ko ci mbindam yi wax ci ni mu bëgg ñu mel yaroon ci ay mag bañ meloon noona dund ca ba génn àdduna am ngërëmul yàlla kon tënku ci ndigal yooyu dañuy war ginnaaw bu ñu ko xamee tënku gu wër goo xam ne nag dañuy jàpp nag ne mooy yoon wi gën ci noonu ndax sëriñ bi dañoo tànnal la gën moo gën a déggoog ñu nit ndax xam nañu xam barab bi ñu dëkk xam na li gën ci ñun yarekat bu mag la am na ndigal ci yare la mu ñu tànnal mooy li gën ñu jàpp ne lu ci ne ay mazahib am ca ay déggin am ca nañ jàpp ne li ñu sëriñ bi tànnal moo gën ci ñoom kon ñu jàppe ko noonu tënku ci nag ñun ñëpp loolu warteef la ci murit bu ne nga xam ne kon kuñ gis nga di murit rek buñ nappee ci yow saa boo jëfee wala nga jëflante rek ñi xam Sëriñ Tuubaa war na ñoo xam ne yow mi taalibu Sëriñ Tuubaa loolu daa war a feeñ ci sa sa suluk daa war a feeñ ci sa muamala bi ngay def ak ñeneen loolu ci warteef murit la murit du rek man murit la dëgg-dëgg murit jërrum di ko wax ci làmmiñam fu mu jaar rek kenam mel na muy dunde ku xam ak murit da nga xam ne war ngaa xam ne kii murit la kon loolu warteef la ci taalifi sëriñ bi ñu jëmmal ko ci sunuy melokaan nga xam ne ci misaal nax ju xadaayil xaaj bi nga xam ne sëriñ bi ay teggin la ci jàngale barab boo dem ku la gis da xam ne yow mii da ngay tatbiq nax ju xadaayil xaaj ngay ngay appliqué ci sa ci sa jëflanteeg ñi ñi la wër yeneen yi ci des yëpp noonu kon mu doon. du doon ñuy mokkal di ko man di tari waaye buñ jëfee nag jëf leneen déedéet li war a ci murid yi mooy buñ jàngee mbindum sëriñ bi ñu fexe ba dund ko nag ba suñuy suñuy jëf di firi lii ne ci téere yi loolu it jàllee bokk na ci li ñu war tasaare ndonol sëriñ bi loolu tasaare ko mu àgg fi mu war a àgg fépp ci àdduna bépp ndax ñëpp la doon bindal moom xéewal la woon goo xam ne doomu adama yëpp ko soxla tasaare gi nag bari na lu laaj laaj na liggéey ci mbind moomu ci taxqiq taxqiq mooy lu ci nekk ñu topp ko euh, jéem a xam la ci sëñ bi doon jublu ñam ci tudd te xamuñ leen ñu fexe bañ xam leen delluwaay yam ciy tudd ñu fexe ba xam delluwaay yooyu waaye saraa ko leeral ko nit ñi waaye tekki ko tekki ko ci làkk yu wute tàmbulee ko ci yi waaye tekki ko ci làkki tubaab yi nga xam ne nii daa tasaaroo ci àdduna fexe ba ñëpp jot ndax ñëpp la amal njariñ su ko defee nag loolu laaj na jëfandikoo mbooleem jumtuwaay yi nga xam ne àdduna mi koy jëfandikoo ngir tasaare xam-xam moo xam mool la fexe bay mool ay téere kon am ay moolukaay yi nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké radiyallahu anhu jéegi woon seqi woon na ci jéego bu rëy bi mu defaree daale kaamil wut fa ay moolukaay yu bari boobu jot fa mool lu bari ci ministre bi loolu daa war di wéy daa war di wéy ñu fexe ba mool ko ci moolu yi yuñ xamoon ak yi dëppoo jamono laaj yëpp waaye di génne ay majalla ay journaux yoo xam ne e, déggii ni sëriñ bi lañ cay lañ cay lañ cay tanaawul di ci leeral bu dara xewee ñi nga xam ne ay journal ci lañuy ñuy jote ay mbir ñu fexe ba jot li leen déggiinu sëñ bi ca loola la ca war mu de ñu fexe ba loolu di àgg fépp waaye ay rajo ay télévision war nañ ko am bu ko defee di jàllale njàngaleem sëriñ bi ci gis ak dégg waaye ci lépp lu ci war a jàll ñu jàllale ko ca di jàngale xam-xam xalaat yi sëriñ bi am ak dégginam gi dégg diine ak réalisation yi yi yoon wi def waa kër sëriñ bi def ko njaboot gi def ko ñu fexe ba loolu lépp muy àgg ci nit ñi jëfandikoo internet mi nga xam ne eh, ngànnaay la ngànnaay la loo xam ne nii ñaari wet la ñu xool wet gi jëriñ ñun jëfandikoo ko fexe ba dugal ci mbindum sëriñ bi ginnaaw buñ ko leeralee ginnaaw buñ ko yaatalee ba tekki ko ci làkk yëpp fexe nag ba ay ay site yoo xam ne ñii ki nga xam ne tey jii alquranu karim eh, sunu borom dogal na tey saa boo baat boo ci dugg ci internet ñu waxal la ko waxal la ci la ca root lépp am ay programme ak i application yoo xam ne tey mën nañu wax ne boo ci duggee loo ko laaj bayit boo ko laaj mu jox la ko euh, téere boo ko laaj mu wax la ko wax la la ci aju lépp loolu liggéey bu rëy la boo xam ne jaadoon tey ñu liggéey ko ndax dana yombal fi mu ne tey lu jëm ci alxuraan xadis jafe-jafe amatul ci gëstu ko xadis boo bind ba xam benn baat boo ko boo boo duggee google mu indil la xadis yi ci aju atte yi ca boroom xam-xam yi wax ñu wan la ko loolu mën naa nekk bu baax ci ministère bi lépp ñu fexe ba mu dugg ci biir jumtuwaayu xaral la goo xam ne adduna euh, moo ko indi te ñu soxla ko te am njariñ nag ci wet ñu war ko mën a jariñoo ci anam gu yaatu loolu it bokk na ci li war murid yi ñu dugg ca fexe ba dugal fa ndax ab jala bu ñépp indi seeni seeni seeni seeni seeni marchandis kon ñun nag euh, li sëriñ bi taalif moo war nekk suñu marchandise bu koy dugal ginnaaw buñ ko Euh, defaree ba mu mën a àgg ci ñëpp ci tekki ko ak saraa waaye di organise ay ay ay jataay ay jataay xam-xam ci biir réew mi ak bitim réew di ci woo ay kàngam ñi di ko teewee di fekki nit ñi di leen présenté li sëñ bi liggéey ci diine liggéey ko ci xam-xam loolu jàpp naa ne ci yor murid ci la bokk loolu lépp nag day mel ne yoon wee war a taxaw waaye bokk na ci li ñu war ci njàngalay sëriñ bi ak téere ta ta mbindum sëriñ bi waajal ay ndaw yoo xam ne liñ soxla lépp ci wàllu xam-xam te mu jëm ci mbindum sëriñ bi dañ leen ci waajal jàng ko bu peeg ko dégg ko dégg ko wér mokkal ko jàngal leen ay làkk yu bari yu wuute tarbiye leen ba nga xam ne it nag seen jëf ak seen jëflant yëpp day jëmmal taalifi sëriñ bi ndaw ñooñu nag bu ñu ci ñoom ñu tasaare leen ci àdduna ci biir réew bitim réew su boobaa tey jàkk yu bari mën nañ faa nekk di di jiite. di jàngale di yare di jubbanti nit ñi bitim réew it fu ñu fa soxla ñu yóbbu fa ñu mel noonu ñuy taxawu diine di woote lislaam waaye jaare ko ci njàngalem sëriñ bi ca làkki waa réew moom loolu dana tax woote bi gën yaatu ñi xamutoon sëriñ bi xam ko te it ko xam moom dañ ci dugg dañ ci jariñu ndax njariñ dong la ëmb loolu daal jàpp naa ne su amee incha allahu taala Euh, njàngaleem sëriñ bi danaa bi fu ne yii nag warteef la yoo xam ne mur bu ne am na ci wàll waaye nag euh, yoon wi ci boppam nag am na ci taxawaay am na yaakaar nag yàlla na yàlla dëgër yaakaar jooju te yaakaar ji mooy daara ju mag gi cheikh Mouhamadou Mountakha xafisahullahu taala wa raahu wa nasara wa ayada tàmbali muy université bu mag bii nga xam ne am nañ yaakaar ci ne bu noppee wala boog complex bi lii ñuy wax nii lépp mën na koo saytu njàngum alxuraan njàngum majalis njàngum xam-xam université ak njàngi métier yépp mi ngi ci biir yoo xam ne day mel ne bu noppee nag loolu mooy tas ci biir réew mi dem bitim réew ba li ñuy soxla lépp mën na am kon ñëpp ñoo war a maase ànd ñaanal Cheikh Mouhamadou taxa waaye ànd jàppale ko ci liggéey bi kenn koy tàmbalee ko fa nga nekk programme bii mu teg ngir ñu ci jàng alxuraan di ci jàng xam-xam ñu tàmbali di ko jëfandikoo kenn ku ne fa nga ne ba nga xam ne bu ñu noppee benn tibu taalibe la ñuy am ñun ñëpp ñooy bokk benn programme bu ñu leen yore su ko defee bu ñu noppee nañ bëgg sëriñ bi mel na bi bëggoon murit bi mel ko ni dana mel noona bu ko defee dana mën a taxaw am jumtuwaay bagage yu doy ngir mën a jàllale risaala bii nga xam ne risaala bu islam la te sëriñ bi yor ko. ci ndigal borom di ko jàllale ñooñu it man koo wéyal ba fu mu war a àgg mu àgg fa loolu am nañ ci yaakaar ndax yi ñu wax fi yëpp euh, daara ji mën na koo jëmal di mooli téere di ko tekk ci làkk yi di organiser ay nadawaat di woote ay jataay xam-xam di wuy ji ay jataay xam-xam loolu lépp mën na caa ne ci biir waaye programme bi mu yore ci wàllu jàng tasaaroo ci biir yoon wi ak bitim réew fu murid nekk wala fu ab jullit bëgg lu baax nekk ñu mën la koo jox nga xam ne tey foo mën a nekk it bu ñu noppee ci yow yaat ki yaroo ci biir Tuubaa yéen a yem xam lool diine xam lool noo koy jàllale ndax loolu day am solo lool diine yar la ci ba noppi nag jàngal la nuñ koy jàllale ba nga mën a jàllale sa risala bil xikmati wal mawazatil xasana loolu mag ñi amoon nañ ci xereñ koo xam ne seriñ bi leen yaroon loolu lépp daara ji war na cee mën a taxaw ba nga xamee ne nii euh, dana doon daal ab delluwaay la sëriñ bi ñaanoon daal daaray xam-xam joo xam ne la mébétoon fu ne la nit di bàyyi ko di fa jël si xam-xam euh, loolu la sëriñ Mouhamadou Mountakha bëgg jëmmal kon yàlla na ko yàlla dimbale sàmm ko mu àggale ko ñaan ko ak moom kon loolu mooy li nga xam ne daal jàpp ne buñ ci taxawee daara jaa ngi dox nag waaye murit bu ne it war naa waajal boppam yëg boppam ne mi ngi moom itam am na warteefu loolu gone yi toll ci jàng kon nañu yóbbuñ jàngi ku ci mën a mokkal alxuraan nañ ko yóbbu mu wattu alxuraan tàmbali njàngam jàng téere sëriñ bi jàng xam-xam yi am njariñ yépp lakk wu am njëriñ wane ñu jàng ko bu noppee nag dellusiwaat ci liggéey bi ànd lu mel ne tey daayiratu Rawdu Rayaahiin mi ngi góorgóorlu sasoona at mu jot dana génnee ab téere ci téere yi sëriñ bi liggéey ko ci anam gi ñu wax taxaqiq ko leeral lañ ci man a leeral luñ ci mën a tekki ñu tekki ko waaye loolu liggéeyu ñëpp loolu doon maa boog koo xam ne it loolu sa wàll it man-man ma nga am ndax murit bi moom faaw mu xam mbaa mu am mbaa man bu amee lu man euh, su ko joxee jàppalee ko ña ña ña xam loolu dana yombal liggéey bi kon kenn ku ne fa nga war a jàpp nga jàpp fa euh, su boobaa kenn du ne man doonuma dara ci mbir mi ñi am xam-xam alal ñi doole yi mën a bu ñu woowee ñu si kenn ku nekk fa nga mën nga jëfe fa loolu warteef la boo xam ne saa bu murit séenee lu ñuy liggéeyal sëriñ bi te jëm ci tasaare xam-xam nii war naa xool mu fu mu fa mane mu jàpp foofa fu mu fa mane rek mu jàpp foofa kon ku ku yëngu ci xam-xam it kuréel yu mel nii nga dugg ca bokk ca ànd ci liggéey bi ndax kuréel yu ubbi ku la yoo xam ne jagle luñ ko ñaan képp koo xam ne la ñuy def man nga ko rek boo dikkee am nga fa barab Cheikhul Muntaxa it eh, bokk na ci ñi nga xam ne eh, mat li mu doon tax na kuréel yooyu ni mu leen di soññeek jaajëfal leen ak di leen taxawoog mu ngi wan nit ñi ne ñii ñu mat a jàppale lañ liggéey bu rëy nga xam ne yaakaar yëpp ci aju mu teg ko ci seen loxo loxoy daayira Hizbut Tarqiyyah ñu ànd ak si Ahmad Badawi ak borom xam-xam yi ci dëkk bi yëpp ñu ànd liggéey ci liggéey bu am solo mi ngi wan nit ñi it ñii ñëw ñu war a taxawu lañ loolu it mu bu ne da war a xam fa nga nekk kuy yëngu ci wàll gu mel noonu la nga ko mën a jàppale nga jàppale ko bu dee jox ko sa doom mu jàngal ko yor ko nga jox la bu dee mbirum diine la loo cay yëngu nga jokkook ñoom laaj leen ko fexe ba la ngay def lépp tegu ci xam ba boo jëfee ñu xam ne yow sa jëf jii bayit sàngam ci téere sàngam boo fekk fa sëriñ ba ko doon moo ko jàngale nii loolu mooy kon warteef lu ci ñun ñëpp ñu xam xasida yi dund xasida yi waaye yóbbu xasida yi fam war a àgg fépp xasida yi ak mbindum sëriñ Tuubaa mépp sax ndax du lépp mooy ay xasida waaye dal mbindum sëriñ Tuubaa mi ridwaanullaahi taala alayhi war na ci mur bu ne mu xam ko dund ko dundal ko ci tasaare ko ci nu mu war a tasaaroo fu ne waaye tàmbalee ko nag ki tasaaree ko ci jëf ak jëflante mooy dund ko door ko tasaaree ci ay kàddu ñu war a mën a seen kàddu àggale ko fépp loolu daal euh, lañ jàpp ne mooy li ñu war ñu ñëpp am yaakaar it sunu kilifa gu tedd gi sunu borom andi ko yàlla na yàlla yàggal mu seq ci jéego boo am solo boo xam ne ñun ñëpp tax na ñu am yaakaar ne bu naal wi àggee te yàlla na àgg ak jàmm lu baree bare ci lii ñuy wax nii dana dana saafaraw doon ubbi buntu ñëpp mën koo roy it su ko defee incha allahu taala fañ bëgg àgg ci wàllu googu dañ fa àgg te buñ fa àggee njëriñu àdduna ak alaxira la day dëggal la euh, Cheikh Sidé waxoon ne a Cheikh Ahmadu niamatun awlaaha hadi alxalaayiqa kullaha mawlaaha ña xéewal googu noonu mu ngi feeñ ci lii mu yor bàyyi ko fi àgg ci ñëpp ku àgg ci moom da xam ne dana xam ne xéewal la àggale fa nag suñu warteef la ñu murid yi maa ngi jéglu di baal xaq del baalaq di ñaan sunu borom defal ñu koor yu ñu nangu te ñu fekk ko at yu bare bari ànd ko suñu kilifa yu te di ci njiitul Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu ngi dellu di siyaare ñëpp di ndokkeel waa daara ji di leen balu xaq nag ci lépp waaye di sàkku ngeen ñaanal ñu yàlla defal ñu euh, yërmaani àddina ak alaxira defal ñu taw tawfiq àddina ak alaxira wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu